أهلا وسهلا وترحيبا بنا عددي toujours daayira Moukhaddamatoul Khidma jiite suñu sa mbooloom bopp moom nga xam ne ba mu sosoo ba tey nga ànd nañ ñoom ci liggéey bi ci waxtu nga ñoom ci liggéey bi ci waxtu nekk rek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 waaw weer yëpp waaw waaw weer yëpp la waaw dañ fi bàyyi waaw liñ ci war liñ ci war a waxtaane yëpp di di sàkku ñaan nag nga ñaan ñu baax ci réew mi yëpp ak ñu ci bitim réew daal dogal suñ aadi turam mi ñu daje fi ñu jóge ci Espagne ci ñoom waa Espagne ñoo ñooy déggoon ñoom déggoon sa woote ba ñu jàmbaari ci liggéey bi lool te la nga leen waxoon bu yàgg yàgg man na fukkat ak juróom nga waxoon na leen liggéey bi jumaa ji ak ñi ci liggéey bi ak ñi jàpp ci liggéey bi na nga ko waxoon boobaak léegi ñoom ñu ngi fi kon mu ngi fi taxawee tim dokk ci jëwriñ yi sonn ca lool ñu seeralal ñoom ñooñu ak waa bitim réew ñi jàpp ci liggéey bi ñu ngi lay nuyu tur sëriñ Afia ak tur daayira Muxaddamatul Xidma yëpp xam naa si ñëpp li ci des waaw ah noonu noonu da nga demee ñu ña nga ko bëggee rek dañu ah. sàkku la ci yéen alhamdulilah ni mu demee leen lu loolu ngeen jiddu ci nañ leen yar ngeen bëggal ko seen bopp nekkal ci seen bopp déglu leen ci kenn la ci sa kameyu kay loolu xam xam xam xamal nañ leen ko xam xam ko boobu nag moom lañ leen jàppe parce que ko ànd ak yéen alhamdulilah ko ci kanam borom la génn alhamdulilah alhamdulilah di leen sant nag di leen gërëm alhamdulilah dëgg xam nañ sa sa bëgg ci xam-xam moo tax ñu indaale ngir leeral la tomb bu nekk dañ fay waxtaane ak ña koy def ngir nga man koo xool xëy da nga xam ña koy def ak lañ fay waxtaane lépp lu mu doon fañ doon baax